Assalamualaikum, mbok Thiès Est ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp ci seen tur seen sant di leen ñaanal jàmm wér ak wërsëg mucc ak muccule ñu ngi fii ci mairie Thiès Est ci liggéey boo xam ne mu ngi jëm ci askan wi projet bu ñuy wax centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable ñu koy tudde SED mu di ay partenaires yoo xam ne ñu ngi bitim réew ñëw fekk si gox-goxaan yi ci Sénégal ànd ak ñoom pour jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sasoo ak seenu askan waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom ci loolu lañu ñu dikke woon Thiès Est def fi ay formation ay atelier waxtaan woo xam ne jaroon na ñaari fan population bi yépp génn ñëw fii ci saalu Thiès Est bu maire bi waxtaane fi li nga xam ni moom la ñu bëgg ak ni ñu ko bëggee ci biir commune Thiès Est ñu ànd ci ak maire bi yàlla def na aussi maire bi ubbil na leen ay buntam taxawu leen ba ñaari fan yooyu ñu def ko ci anam bu mucc ayib bi ñu tënkee waxtaan wi ñu ngi ko tënkoon ci juróomi poñ yoo xam ni loolu lañu bëgg Thiès Est doxal ko ci fànn yi may bëgg a lim bi ci njëkk mooy walla première poñ bi mooy ñu taxawal ci biir commune bi ab comité buy aar tur tànk yi ndax tur tànk yi ay néew ji doole lañu gis ngeen sax jafe-jafe yi ñu am léeg-léeg ci seen wàllu lu leen aar pour ñu mucc ndax dégg ngeen fi ci jamono yu yàggul sàcc nañu doomu diw dag nañu loxo doomu diw wala tank ba wala bob ba li indi won lolu nak moy xeyna na farlu gu wajuri yi farlu ci njabot gi waye comme njabot gi ñun ñepp ko bok te ëlëk dafa jara gasndiku comme li tuwab di wax la jeunesse et l'avenir de demain kon jeunesse boobu war nañu am wér yaram am kaaraange pour que bu ëllëgee ñu mën a taxaw seenum réew seeni gox kon ñu ni nañu taxawal ab kuréel boo xam ne daal dina leen man di aar muy comité communal pour la protection de l'enfance yàlla def na comité boobu bi ko maire déggee muy moom it waajur bokk ci itam yilif walla jiite askan wi mu farlu ci lool dox ci ay jéego waxtaan ci ak conseil bi ak bureau bi ak sax agent yi yi fiy liggéey pour ko loolu daal ñu mën koo taxawal ndax lu tiis la ci xale yi waaye lu ñu war a taxawee la dox nañ ci ba fii mu nekk nii bés bu rafet la ñuy xaar pour mën a taxawal comité boobu pour que ñi ko bokk man ko di doxe ak di ko waxe pour que xale yi man am security. maanaam sécurité sécurité nag ak sûreté sûreté mooy waajur yi xel dal ba ku ci say doom génn dootoo tiit boko yenne timis di nga am yaqeen ni dina dem ñëwaat ci jàmm sécurité looloy sécurité bi xel mu dal mi sécurité mooy xale yi ñu bañati den di faagaagal ndax dinañu am ñu taxaw ci seen wet di leen aar ñaareel bi ñu ni woon état civil dafa am solo lool ci aw askan ndax dundu doomu aadama man ak tele ñoo ko ndar kepp boo juddoo donc dañ laa war a déclarer nga am identité ñu reconnaître ni am nga ndey ak baay yu la reconnaître parce que loolu sécurité la aussi ci xale bi boo màggee ba war a takk soxna wala ñu war laa denc comme jigéen ñu tuddee ko mariage loolu itam dafa am solo ci dundu njaboot dundu doomu aadama waaye ci diggante bi itam am na dee kon yooyu yépp bu ci dal ci aw biir famille rek dafa war a fekk mu am ay kayit am lu ko màndargaal bu ëllëgee kenn du laam-laame maire nag dafa yor cër boo xam ne ci askan cër bu rëy la cër boobu président de la république sax yoru ko parce que moom mooy attesté ne diw juddu na mooy attesté na ni diw dee na mooy attesté na ñaar ñii ñu ngi dencante loolu nag mooy nit mooy àdduna dafa rëy loolu ñu ni kon nañu fexe ba yokk ko waaye defar ko ba mu mucc ayib ba képp ku amati tur tànk man koo déclarer ca mairie ba fa mu la gën a jege waaye itam këyit yooyu nga xam ne moom la ñuy bàyyi ca mairie bi ñu mën koo aar ba mu mucc ayib moo indi informatisation bi ci maire ci maire conseil municipal bi ak bureau bi taxaw nañ ci ne na former ñi nga liggéey état civil agent yi ñu former ci ordinateur informatique ordinateur ñu am partenaire aussi bu ñu mën a jëlal suñu benn état civil mu dem bitim réew italie ñu formé ko won ko aussi nañuy liggéeyee ak nañu yore seen état civil ba dellu si waat na ba demaat barki demb la bis loolu aussi taxaw nañ ci ànd ci ak waa sedd euh, kon jàpp naa ni ci diir bu yàggatul dañu def yeneen centre secondaire fele ci fayu ak ci cité ouvrière ak ñaar yi fi nekkoon bi muy principal bi ak bi nekk hôpital régional buñ ci yokkee ñaar yooyu defe naan daañu gën a jege askan wi dañu gën a def ay waxtaan aussi pour que nit ñi aussi bàyyi xel ci doom bu juddootee da nga ko war a déclarer waaye wax nit ñi aussi ni do nit bu génn àdduna waratoo ko te déclarer woo ni génn na àdduna ñettelu laaj bi ñu ni aussi poste de santé wérgu yaram nañu fexé ba poste de santé yi nekk ci biir Thiès commune nga xam ne juróom-ñetti poste la au moins donte la benn la sax ñu am euh, ambulance médicalisée ndax dina yombal aussi faju dina tax bu yenn situation yi taxawee nga mën a évacuer sa malade rapidement te doo am jafe-jafe parce que lool gis nañ ni indi na gàllankoor ba tàyyi nit am na gàllankoor wala mu am tolof-tolof ñàkk koo évacuer wala ñàkk koo taxawu ci teel moo indi quelque fois muy àgg ci yenn situation yi ba xëy na sax mu man caa faatu yàlla defoon nag aussi bokk na ci priorité maire bi ak maire bi santé ak éducation ak environnement loolu bi ko population bi laajee mu yemboo woon ak taxawaayu maire ak maire bi ñu ni kon daañ ci sawar lool maire dox na ba amoon partenaire boo xam ni waxoon na ko ni ko dina ko ci taxawu ca loola jàppale ko ci ambulance ba lool nga xam ni moom mooy bëggu-bëggu askan wi ñu xool nuñ koy taxawoo waaye nag comme partenaire la ah duñu man lu dul di ko soññi di ko taxawu di ko ñaax pour mu indil ñu ndimbal lool parce que lu mu gën a gaaw gën a baax waaye itam ah donc ñu suñu loxo ndax ñoo ngi liggéey ci poste de santé yi at mu jot ñu jàppale leen ci nu ñu mën a gën a yokke seen liggéey ci wàllu wergu yaram loolu aussi bokkoon na ci les populations yi ñaan beneen bi aussi muy quatrième demande bi muy ramassage des ordures maanaam ni mbalit ton tonni mbalit nag fu ñu ko waxee rek am na tuur mbalit moo tax li njëkk mooy waxtaan ak population bi xëy na mbalit moom mënees la dëkk ak moom ci kër gi waaye ñu organiser wu de sorte que ñuy xool fi ñu koy sotti pour que bu oto bi ñëwee mën ko faa jëlee waaye bu dee nu nu leen neex sottee fu leen neex sotti lu leen neexit sànni ci mbedd mi loolu du baax kon population bi aussi war nañu yeewu ci loolu maire baa ngi ci mu ngi ciy dox ndax fekkoon nañu ay groupement féminin yi fi nekk ñu ngi def ay jéego pour dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom sensibiliser leen te gis nañu aussi jigéen yi di bale léeg-léeg ci mbedd yeeg seen i kër mu ñu leen gënee organiser dina gën a baax waaye nag ramassage des ordures torni mbalit dafa fekk muy cër boo xam ni bu mag bo maire de ville bi taala si la jité mom lañ ko jox kon waref la ci mom mu taxaw ci lola taala si la yalla def na conseil municipal fi ci ties Est kon japp naa ah li war maire ci ties Est war na maire de ville ci ties gep ñu ngi dox ay jéego pour ak mom pour àggi ko loolu nga xamni mom la population ties Est bëgg te muy seen yelleef ñu déglu ko lu mu ca mën a def ñu ànd ca aussi man caa taxaw bu ko defee nit ñi dañu mën a bañ a tëdd ak mbalit ndax mbalit moom bokk na ci li indi jàngoro li indi feebar li indi wéradi bu ñu ko moytoo rek mën naa am wéradi ak gàllankoor ci wàllu wér gi ci wàllu yaram dina wàññeeku moo tax comité bii nga xam ni moom lañ ñu dénk ma ànd ko ak ñi yàlla def na man adjoint au maire la waaye beneen adjointe au maire deuxième adjointe au maire Astou Dieng mu ngi ci joor mu ngi ci bu Kunta mi ma dendeel mooy secrétaire bi Fatoumata bali mu ngi ci Habib Fall di délégué de quartier DVF mu ngi ci Ndumbe Bey aussi mu ngi ci donc ñun bi ñu waxtaanee keroog ci ties Est ba pare ñun lañu ni yéenay comité bi nga xam ne lii ñu bëgg yéen a koy taxaw di ci dox di ci wax di xool nu ngeen koy saytoo pour mu sotti ñu ñun nag ñoo ngi ciy waxtaan farlu nañ ci lool waaye ñu ngi ciy ñaan ay ndimbal jiitu ci nag yàlla ndimbalu yàlla ak askan wi nga xam ni ñoom la ñuy defal autorité yi tamit topp ci beneen bi mooy ñu ni won salle de classe xam nga wax salle classe wax njang waye waxon na len sank ne len priorité maire ci Est ak maire bi pa Bassirou Diop moy éducation santé environnement kon su population bi ñëwé fi ci bir maire est waxtaan fi ba teunk ni éducation dal lu jara a lu jara taxaw la wax deug yalla kon fekk na moy joxoñ bu tassé gestu kon dañ cey sawar lol waaye nag bala nga ne naam ne fa Thiès Est da di ci commune bu rëy bu yaatu te dooleem néew lool kon faw mu wuti pexe faawe ñu jàppale ko ñi ci jiitu mooy ñi ko dëkkee am na ci ñu yàlla dénk am koom am na ci yàlla dénk man-man te fi la dëkk ak seenu njaboot kon luñ ci def seen bopp lañ ko defal waaye itam euh, état bi nga xam ne moo yilif ñëpp yor koomum Sénégal moom it war naa taxawu commune yi surtout ñi néew doole ñi kon sas woowu ñu ngi ciy def li ñu man waaye ñu ngi ciy xaar ndimbalu aussi état état nag ci ndimbal loolu mu saytu woon ni da koy dimbalee commune yi ñu koy tuddee pakaseen waxoon na ni Thiès Est yéen bokk ngeen ci commune yi ñu sélectionné ba daañu leen jàppale enveloppe bu am solo ci xaalis pour ngeen mën cee àggale ci yenn ci seen yéene ñu woon enveloppe boobu bu ñëwee yemmook bëgg-bëgg askan wi ndax euh, xasan-xasan borom ma koy wokkal boppam askan wi ñoo ni lii la ñu gën a bëgg mu yemmook ñu nit li ñu gënoon a bëgg bu ci état jàppee day gën a yomb waxoon nañ ñu 2018 enveloppe bi dina dikk li ñu waxoon ni lañ nañ ko def def nañ ko toog doon loon déglu waaye yàlla def na sottiwul léegi nag état dellu si na na ni yóbbu leen budget boobu 2019 defe naa ni lool du ñu tardel dañ ko taxawee ba mu mën a sotti waaye itam ñu xam ne rek bu gaawul bu sottiwul xëy na loxob état yeex wala moo ñëwul kon daal ci juróom yooyu nga xam ni Thiès Est population ñoo ko bëgg te ñun maire bi ñu taxaw ci foofu lañ ci toll loolu lañ ci dox loolu lañ ci wax suñu yéene rëy na pour sottal ko ci nu mu gën a gaawee. Euh, bonjour tout le monde euh, c'est Papa Bokounta Seck secrétaire euh, secrétaire du comité de suivi de la commune de Thiès Est. Bon, je vais être plus bref parce que M. le maire Magaïsar a, a, euh, survolé les différentes demandes citoyennes de manière très détaillée. Donc, on va aller avec euh, le, compte rendu du jour. Euh, le comité de suivi de TSS s'est réuni aujourd'hui ici à la mairie en compagnie du CED et du projet PISCA. Mm-hmm. Donc, je vais vous faire le compte rendu de la réunion on avait comme hors du jour l'évaluation des cinq demandes citoyennes qu'on avait formulées ici lors des, séminaires passés. pour la première demande, qui était de mettre en place un comité communal pour la protection de l'enfant. pour cette demande, au-delà de la, de la mairie, l'administration centrale, la préfecture euh, a promis de s'impliquer on attend juste la décision euh, du maire qui était en voyage mais qui est de, euh, de retour pour euh, fixer une date d'installation de la, de la dite commission. Pour la deuxième demande qui était l'amélioration de la qualité et l'accès à l'état civil, concernant ce point, la mairie a identifié deux sites pour la décentralisation du centre d'état civil en construisant des centres secondaires au niveau des quartiers Cité ouvrière et Fayou, qui sont euh, des quartiers d'extrémité de la commune de TSS. Et sur ce, la mairie aussi euh, a, envoyé des agents d'état civil en formation à l'étranger. Donc on attend juste leur compte rendu. Et pour la construction des centres secondaires, la mairie... Euh, était bénéficiaire du financement du PACASEN, qui est finalement renvoyé en 2019. C'était pour la construction des, centres secondaires. Euh, concernant le, troisième point, euh, qui était doter les postes de santé d'au moins une ambulance médicalisée, euh, pour ce point, la commune a trouvé un partenaire à ce sujet. Il reste juste à suivre le partenaire, à le booster et à l'inciter à la réalisation du, du, projet. Donc, concernant la, quatrième demande, qui était d'assurer le ramassage quotidien des ordures ménagères, et pour cette demande, le ramassage est une compétence exclusive de la mairie de ville, de la grande mairie. Donc, euh, euh, mais en, en tant que commune d'arrondissement, des efforts sont en train d'être faits pour trouver une solution. Donc, on a introduit une demande d'audience au niveau de la mairie de ville. On attend toujours la réponse. Tout compte fait, la commune a initié des contacts avec les groupements féminins des différents, différents quartiers de la commune de thiès pour que, à notre niveau, trouver des solutions pour euh, arriver à une solution concernant le ramassage des, des ordures. Concernant la quatrième demande, qui est la réhabilitation des salles de classe vertus est abandonné. Pour ce point aussi, la commune attend toujours l'enveloppe du PACASEN, qui est euh, un programme d'appui des communes du Sénégal, dont la mairie TSS est, bénéficiaire. Mais nous attendons toujours l'enveloppe qui est euh, renvoyée en, 2019. Et la mairie a déjà identifié cinq écoles euh, pour, la première phase, pour les réhabiliter construire des, des salles de classe à ce niveau. Donc c'était les cinq demandes de de la, du comité de suivi de la commune de TSS. Aujourd'hui, nous sommes à notre dernière réunion parce que le projet s'arrête en, en, en, ce mois de novembre, le 30 novembre. Donc je pense qu'on a tenu des réunions mensuelles depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars. Donc le comité de suivi est aujourd'hui à terme. On a suivi une formation, on est assez outillé pour mener le, contrôle, et le contrôle citoyen.